sori na génn amul seen fay yàlla mi ko am yàlla leen fay damay wut ku am fit ku ñime ndaw loo xam ni dina mel ni ndaw la buur siin yóbbu woon ci màbba moom bu ñimee mu ñëw jël sama bataaxal yóbbul ma ko ci président Macky mu ni ko askan wi nee na xale yi mu yónniwoon woon ñu jàngi xale yooyu seen jàng mat na wàcc nañu xale yi mu yónni xale yooyu ñibbisi nañu xale yooyu màgg nañ te yéen wolof yi yéene ni ku sa gileem màgg dootoo sàmmi dootoo sàmmi mbaam kon yéen mënatu leen a sàmmi mbaam su ngeen demee ngi ne ko xale yi ñi ngi ñibbisi xale yi ñu ngi fëgg bunt yi xale yi ñi ngi fëgg bunt yi waaye na xam ni xale yi yëg nañ ni xale yi xam nañ ni bi mu toogee ci nguur gi ba léegi ku fi yëngu rekk falang na ay tànkam nee nañu falang na tànki Karim Wade nee nañu falang na tànki xalifa Sall yow mii sax dégg naa léegi ñu say tànk waaye yaakaar naa ni mënu ko waaye su ndaw loolu demee na ko ni njiital FDS nee na ko loo falang falang falang duma tee ñëw loo falang falang falang falang du ñëw ñaari lawar weer du ma téye ñëw jaaseeg mbaram ci bët du ma téye ab lañ seet tareet ci bët du ma téye ñëw jaay doole ak kaso du ma téye ñëw alkaati ci kaw tali du ma ñëw ca su ma ñëwee jàjju la maa sàmbay mbiri ndaw béy du raas guddi e mbeeri kon loolu rek laa bëggoon ngeen yëg ko te ngeen xam ni bis ñi ki tey fds ek sds judd na fi ñu waroon a dem yépp sàkku ñaan ci kilifa yi def nañu ko dem nañu Touba dem nañu fépp sàkku nañu ñaan li des nag yéen a ko wax sama mbokk Alpulari, yi dañ ma ni mbasu saa bone laa ma taako ku bëgg akara ñi may ku bëgg akara ñi may kon kon képp ku ni FDS nga ta muy dëgg ci yow so fi joggé so fi joggé na nga xamni mission nga am village ba gëna sori ke Sénégal na nga fa dem bu jaré fanan al fananal al bu jaré tawté na nga tawté la direction du mouvement ngeen organiser le mouvement jusqu'au plus petit quartier jusqu'au village le plus reculé de ce pays c'est comme ça qu'on construit un mouvement mais pas des aventures solitaires de ces gens qui occupent les médias qui n'ont aucun rapport avec la réalité nous nous avons voulu construire un mouvement et avec vous nos idées, comme nous le disons depuis plus de dix ans, nos idées triompheront un jour dans ce pays. Merci, merci. ñibbi leen ci jàmm ñibbi leen ci jàmm ñibbi ci jàmm jërë ngeen jëf